Bienvenue sur Salam Vision. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا لهور yaa di teew ci bis bi di sant bay jiidi bu baax ndax lim lu defar réy na lool bi nag moom mooy sëriñ bi barke maam si rajo Ndane bi dafa àgg bi bëri ci boromam yàlla moo moom dafa àgg bi yàlla mas nañ xibaar ak njëbbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ne ko Ahmadu moo la moom mu ko jot ko say moo waral mu dellu si waat ci Ahmadou Ahmadou def ko baa bi murid diina nag bi ñoo ko jàkk xam ne Cheikh na leeral sa borom la bu bàyyi ko sa borom si tuwaare na yaay bunt bi jëm ci man ne ko may dëkk bi waaye yow yaay yoon wi am di faal kon nun faal tiiluma dara ragalum dara barke maam Tiraay Faal boo déggee baalu sant mooy Cheikh Ibrahima muy kuy tudd Cheikh lu ñëw mën la sant maam Cheikh Ibrahima ñun sant maam Cheikh rek la ñuy def di siyaar si yëpp laaj bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko xamal ne ko waajuram amuñu ci moom sago ndax amutoon sago si mu dëgg itam barke kon kooku bëri ko ci mbartal la Cheikh rek boo ko daan dénkaane bëri ko ci mbartal teg mu dem tegul mu dem nee na teg leen waaye ngir bu liggéey bi àggee ngeen defee sàcc ak a baax kon moom sag bi rek sag na sag ba sag neex sagoo Cheikh Ibra gën a neex barke maam si rajo Fall sag ba sag neex sagoo daa bay maam seen bu jaay barke maam si rajo Fall ku fi am sag moo la defal sag na lu bàyyi waat xel Cheikh Ibra dafa jot dafa jot lu bàyyi waat ko xel te xam ne lépp am la te njariñ boobu yéeneen yéeneen si diwaan mooy yéeneen Cheikh Ibra yaa maalikal mulki yaa man jaanal xawadi di sa jëmmi alwala jooju te loolu mooy yéene yéene sa borom yàlla bi ñu la jàmm de waaye am na yéene yéen ñëpp yéene ñoom cëri si jubaa teg tànkam bi Cheikh bi ñëwee ci la teg tànkam muy yàlla sa borom yërëm jaam ni yërëm jaam ni kooku nag yàlla jël na ko teg ko ci loxol Cheikh Ibra waaw xam nga nu yàlla di yërëmee jaam ni lu liggéey sëñ Bamba ku liggéey sëñ Bàmba yàlla yërëm la billaahi Cheikh dana ko jàkk na ko sa borom def na ci yow leer boo xam ne lu nit tilim lu takk takk yow Serigne Touba boo ko fóotee mu seet wecc te dooroo takk xam nga nu Cheikh la di fóotee liggéey Serigne Touba te liggéey Serigne Touba rek fal na ko ne xam de Fall barke maam Cheikh Ibrahima Fall adduna lu mu yëngu-yëngu lu mu yéeme yéeme mun nga lijjanti ñun nañ lijjanti Serigne bi ñun Baye Fall bàyyi faal ak am solo ndax bu ñu demee ba ne siñ fallu moom soxna Awa Bousso na fallu bàyyi faal boo gisee bu jaayante jaayante nga jaayante woon na Serigne Touba nag jël naa ko ak caal bi ko def bi loolu mooy ak bàyyi faal bay ji mooy ni nga def da ngaa lépp jox Cheikh Modou Sa waaye jox ko ku mat ku mat ku mat barke maam Cheikh Ibrahima Fall naa la Serigne Cheikh Fall Khadigué amu ci moom amuñu ci moom sago ngir lam bokk ak Serigne Abdou Wudóor bokk ak Cheikh Massamba bokk ak Serigne Salifa Fat Saw moo tax amuñu ci moom sago Cheikh Abdoulaye lii amu ci moom sago ngir di ko xoolee jëmmi Cheikh Modou Moussa Fall di ko xoolee jëmmi Serigne Cheikh Darou Fall di ko xoolee jëmmi Serigne Salifa Fat Saw barke maam Serigne Fall bëri ko ci partal la teg mu dem tegul mu dem dégg bàyyi julli barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñun ñëpp nañu dalalaat suñu xel te xam ne nag ki sëriñ bi jiital bu ko romb ndax sa lépp ci la nekk barke maam Serigne Fall nañuy bàyyi xel tegtalu sëriñ bi fii kenn garaawu fi sëñ bi rek garaaw kenn du fi dara sëñ bi rek lépp te ci kaw nag bu fa jiit wàcc ñun moomuñu kaw bi suuf gi lañ moomee barke maam Cheikh Naye Fall ki nu sëriñ bi jiital nañ koy bàyyi xel ànd ak moom tubaab yi xam di muridin saadixin lahumoo bi xidmati aw bi hubbin aw adiyaati fii lépp a leer dalal lëndëm mu fii ku bëgg a defaru ñëwal seen dukk yi moo koy wax de barke maam Cheikh Naye Fall nee na sëriñ Tuubaa yi defare sëriñ Tuubaa mooy defare am déet kon sëriñ Tuubaa mooy defare nag ku mën a defar bàyyi waaye sëriñ Tuubaa moom mooy defare kon sëriñ Tuubaa yàlla na defal ñun bi yàlla na fi yàlla ngaa ñëw wér di ñaan nag ñi nekkaat ci biti la nga ñëw ci biir baax bi ngir jëmmi sëriñ Tuubaa ndax fu sëriñ bi nekk foofu la lépp nekk li barab bi di yaatu yaatu fu sëriñ bi nekk fi la lépp nekk kon ku bëgg ci ñëwal fi ñëwal fi sëriñ bi nekk ngir jëmmi maam Sëriñ Tuubaa dina suuf fanweeri la juróom-ñeent wax nañ ne pàcc bi nga xam ne mooy Daaru Salaam Sëriñ Tuubaa dafa nekkoon ku yara dal ndax pour masaana am lekk mu del keroog bi nga xam ne Serigne Touba ñëw na Mbàkke ba mbokk yi tàmbalee koy sonal ci taalibe bi di ko doxalal ci lépp bi mu wëree Mbàkke Daaru Salaam ba gis ko dafa wax maam Thierno sa mag ju baax ñi de sañu ma koo digal waaye bu fekkoon ne sañ naa koo sañu ma koo digal waaye dinaa la wax te gis naa suuf soo xam ne ñu ngi jooy loolu ngir namm ko xam ne bis bu fa bis bu bis fa dëkkee lu am dana ba maam Thierno ñëwee wax ko si wax ko wax ko Serigne Touba Serigne Touba dafa moom bi ñu ñëwee xool bërëb Cheikh Ibra Fall Daaru Salaam ma ko góor ci loxal boppam wax nañu ne saa su ko mos a arrêté si Touba saa maam Cheikh Anta am na yoon woo xam ne sax maam Cheikh Anta dafa ñëw ñàkku Cheikh yooyu maam Cheikh Anta di ngay fomm ngir di ci barkeel maam Cheikh Anta fonkoon ko fonk koo xam ne da daan indi xéewal mu tàngoor Daaru Salaam wax nañu ko bu ñu ko goree ba ñuy sax ci Daaru Salaam keroog Serigne Touba maam Cheikh ñoom ñeent la fa nekk amuñu ku leen jàppale Serigne Touba wax ne xaaral ma dem ci dëkk ba woo ñu bu ñuy jàppale ma ay ndéy ba mu demee na ko sakko woon amu ko bi ñu ñëwaatee na leen ñett de bu ñu yëkkati ñeent bu ñu bu ñu jàpp ci ñeent di ñëw ba tolloo digg ba.

daf koo yebal ndar lu jiitu muy ñëw ndar avant Serigne Touba di ñëw ndar ci 1895 fekk ne Cheikh Ibrahima Fall maa ngi nekkoon ndar ñëpp xam na leen muy El Hadj Malick si Jalooral El Hadj Mamadou Ndiaye Mabé si Ndiakha Cissé ak ñu bëree bëree bëri ba xam na leen. wax nañu ko ba ñu ba ba ñu woowee si Touba ca ndar ne si wax ne. sama sama sëriñ bu baax de sama sëriñ bu baax ba lii la gisoon moo tax mu yabuloo ma daal kon dañu góorgóorlu war ci njàngaleem euh, Cheikh Laye Fall Cheikh Fall daana wax ne yoonu murid si kil la boo ko déggoon soo ba ngoon di wax dara ju génn waaye loolu itam lu mu tut tut dara génn moo tax mu ne doom liggéey leen yàlla te bàyyi wax daana wax ne ah doom yàlla ñetti fan la aju ma leen ko tënk daaw ma xumb lool di wéer naa ko ci tas mu ne doom bu ngeen wax ku loo bu ngeen ma laaj ku daal ñu ne ko faal ku daal mën nga ay teggee waaye balaa ma ci desee yàlla gërëm na ma ñetti yoon yooyu bi gërëm ña ñetti yoon suñu bàmba gërëm ma ñetti yoon te loolu laa raw bët raw xel kon kooku mooy Cheikh Ibrahima Fall wax nañ ne keroog bi nga xam ne nii gas raay bi tubaab bi boo xam ne junniy nit ak juróomi téeméer la soxla keroog ba si moom Moustapha Mbacke ñëwaatee dafa wax ne ne juróomi junniy nit ak juróomi téeméer lañ ma laaj ci biir Gassou Braye bi mu ko waxee Sëriñ Bassirou Mbacke Sëriñ Bassirou ne ko loolu day seex si ayub yi yoonu murit ku nekk bu joxe juróomi taalibe bi xajut yi waaye xëy na bañ ko waxee lu bëree bëri jallu ndax bu fi Sëriñ Tuubaa dooru jóg dooru jógee xëy na ñu bëree bëri ñu si Tuubaa nee eh, am na lu ñàkkul réeré waaye wax nañ ne korom ba nga Cheikh Ibrahima Fall déggee da ne dafa joxe juróom-ñaari téeméeri ci Ngassou Brahima sëñ mën nga koy téeméer si am sama loolu nga bu joxe téeméer juróom-ñetti téeméer li ci des kër gi njëkkoon Serigne Douane daana wax si boobu Moustapha Mbacké danaa la gunge ba nga ñeme ma boolaa Moustapha Fall sama doom kon kooku mooy Cheikh Ibrahima kon ñu gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ci njàngam ndax Cheikh Ibra Fall lépp rek mooy ab yar ak teeri bi ak ub lépp rek mooy ab ak ub ak ub ci la nekk fi jógee wax nañ ne bis Cheikh Yaaram Mbay dafa dem jaareen ci marché bi am mag mu ne am am ku doon wax ne Ibra du góor du jullit wax ne Cheikh Yaaram bi ñu woon. soxla ko fa dóor ko dóor yi bi ñëwee kanam gi xaw a soppeeku Cheikh Rena laaj ko na ko yaaram daa mel ne da ngaa soppeeku de ma ne kay li ma dégg tey day ëpp na ëpp na ne tey ko loo si lu wax sa jëmm yaaram noo ko def Cheikh yaaram na ko na ko Fall dóor Cheikh Cheikh Rena yaaram toj ko ndax wax na dëgg ñaareelu ko ci sama ngor jox naa ko Sëriñ Tuubaa sama diine jox naa ko Sëriñ Tuubaa la woon wax nañ ne bis Sëriñ Tuubaa xel ne ataaya jox ko na ko wax ne bis Sëriñ ne ataaya jox Cheikh ne ko yónente bi rasul yónente bi moo ko jox Cheikh Ibrahima Fall ne ko jox appaate appaate moom na ko mbàkk loo amul man soxloo ko wax nañ ne bis Cheikh Ibrahima Fall mas naa toog ak Serigne Touba sëñ bi xeeti ataaya jox ko Cheikh ba dugal ñaari loxoom sëñ bi roccuwaat Cheikh Ibrahima talalaat loxoom lay yor sëñ bi jox ko biñ génnee ne yaaram xanaa jaaxle ngeen de ñu ne ko déedéet mu ne man damaa gis ku baax ma ji ma talal ñaari loxo mu roccuwaat Cheikh yaaram na ko Fall ñaari loxo yi daa mel ne am na mu gitaar moom Cheikh Ibrahima na ko ban la. Euh, euh, euh, Cheikh Yaaram ne ko Fall ñaar yëpp la taamu Cheikh Yaaram day wax ne su ma la woon bii la taamu mu dagg ba ca des ngir pas-pasal kon comme que ay Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall ci sa Kajoor ba Daaru Salaam la mas a teg bët kuñ ne kii Serigne Touba moo ko denc nga xam ne daanaka Mbacke Kajoor ba Daaru Salaam jege na lu juróom-benn at ba nga xam ne soxna Ami Doro am na gan muy Serigne Boy Moustapha maam Thierno yónni ku ñu wax Fodou Ndoye bi mu ñëwee wax ko si euh, wax ko si euh, am ku mu ko wax ma magum taali bu ko wax kooku bi mu ñëwee ko waxee si duwaa si duwaa yi it xéwal jox ko Cheikh Ibra na ko na ma ko joxal gan googu keroog bi Cheikh Ibra ñëwee war a dugg ji nga xam ne Cheikh Moustapha Mbacke moo fa nekk Seex Ibra daawul tasante daawul fekkante ku ñuy Sëriñ Tuubaa moo ko yor mu tasante moom ci benn néeg daa yóbbu soxna ak ñu génn bi génnee ci la Seex Ibra ne maa ngi mas bët ku ne Sëriñ Tuubaa moo ko yor ci la dóor a bëgg joxe addiya ngir sàmmanteel xam ne juróom-benn at nekkoon Sëriñ Tuubaa te ñu war a gis ku ne kii nii Sëriñ bi moo ko yor ci sàmmanteel kon ñu gën a góorgóorluwaat bu baax baax ndax Seex Ibra ni fi nekkee bi ñu fi jógee musta maanaam tekki ak saaya ndax wax nañ ne keroog ba nga xam ne ñuy gas nga subraay bi biñ tolloo biñ tolloo kilomètre vingt wax nañu Cheikh Ibra dafa dugg ci oto boo xam si ne wax nañu marque vaccin la doomam Serigne Mourou Mbène moo doon dawal oto bi bi mu ñëwee may wax ni ak si fi tolloo Kourou Mbacké mag ñi ñu bëri naan euh, kii Cheikh Ibrahima kii de kilifa la kii de kilifa la wax nañu bu Cheikh Ibrahima wàccee muy sol garabu bu garabu bu palmaan bu baxam sol mbaxana boo xam ne naar moom ma ngay wàcc ci ginnaaw bi mu ñëwee baas daal di taxaw daal di nuyoo bi nuyoo wax nañ ne da euh, bi nuyoo ba noppi daal di wax ne bàyyi Cheikh Tall abonnement bàyyi Cheikh Tall bàyyi Cheikh wax nañ ne fekkee buus euh, sox kënd gi wax nañu fopp solom bi seewra xëj ko xëj xëj sànni ba bi ñetti yoon ne doom ku xamoon lam nekk dana bàyyi lam nekk ci li ngeen nekk doom cëngóor bi maa koy gis muy jolli ba aras ku xamoon seen pënd bi fa ñu fanaane dina gasum leen bi daal di ne doom àll nga jumtukaay nañu àll nga ba sànni ne doom baa féete maa ngi naan faal fii de maa doom xam naa ko dafay bëgg mat kamaam wax nañ ne keroog këram bi ci xur këram bi ci daara xafoor lay euh, la wax nañ ne ba bis bu dellusee ci lañ ko indi andi Touba mu dëkkaale ak boroom kon li fi dëkkee ba ñu fi jógee Moussa denc liggéey Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall xam ne Serigne Touba dafa ko déggaale ci ay picc mu ne da ngeen moytu piccum kuutur ak piccum jàmba jóob ak ak ak piccum tam ak piccum gënaaru seex ma ne guudul coow li bëri na waaye njariñam lu njariñul kenn léegi njariñu boppam rek ndax nit ñi léeg nga leen gis ñuy werante ci ci loo xamante seen jëmu ci yàlla jëmuñ ci yónent bi di ciy werante ba añ jot ñu añi di ciy werante ba tëdd jot ñu tëdd suñ ñëwaatee nekkaat man loolu mooy jur guudul wala werante ci loo xam si ni lu jëmu ci yàlla jëmu ci diine man loolu mooy góorgóorlu mooy njariñ du njariñu kenn rek njariñ boppam la mu ne na ngeen moo di jikoy jàmba jóg man naa solo ba ne sumb picc mu rafet la waaye man naa solo ba ne sumb waaye jëmul fenn bëri na ñoo xam ne mën nañoo solo ba ne sumb nga yaakaar na ci daayira ba lañ jëm wala ci magal ga lañ jëm wala ci jant waaye saa gisee yow mi jëm daayira wala yow mi jëm programme mën naa yàq sa programme loolu mooy moytu jikkoy jàmba joon mu ne nañ moytu jikkoy tal tal bëgg na ndawal lool waaye lu araw dañ la na ñoo ne si nii bëgg nañ xaalis waaye nangu ñoo liggéey loolu mooy jikkoy tal kon loolu ci njàngale bi nee na tamit nan moytu tamit jikkoy ñaarug seq wax na ne ginaarug seex saa su génnee bu gisee bu gisee bu gisee bu gisee bu gisee moromu moromu ginaaram ak jagu ginaar amul fenn soxla dama lay laafam bëri na góor ñoo xam ne saa suñu solo ba génn suñ gisee suñ gisee soxna bu ñu waroon dem daayira mën na mën nañoo fomm bu ñu waroon dem fay mën nañoo fomm nga xam ne seen faiblesse lépp rek jigéen la kon ñu ngi tuub ci jëmbul di wax ne dénkaane Serigne Touba yooyu ci ñeenti picc yooyu. ñu wàññi bu baax a baax a baax cay tuub cay jéggal di wax ne ñoo ngi santaat sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Moussa Fall moom sëriñ Cheikh Fall Khadijé nga xam ne bis bii day bisam waaye moo dajale fi ñu ko fi wuutu lool muy Cheikh Abdou Ahad Fall ku nekk xam ne sëriñ Cheikh Fall Khadijé nekk doomi Cheikh Moussa Fall génnee gane àdduna bi fi maamam jógee 1930 bu gënee àdduna génnee àdduna xel ko kon xandee bu demee ci waar wàcc na léppam bi Cheikh Ibrahima Fall maandoon ak Cheikh Abdoul Fadil Fall liggéey bu rafet bu am solo wax dëgg yàlla kon bis bu mel nii bàyyi ji léppam day sëriñ léppam day taalibe léppam day pas-pas ndax ku xam xam ne bis bi ah wax dëgg yàlla ñu tàmbalee ko ci alquran lu jiitu bis bi ubbeeku alxuraan boobaa nga léegi tamit ku gis baas bi gis ñi fi dajee xam ne wax dëgg yàlla suñu teg tàngam foofu la bu fi sëriñ bi wax dëgg yàlla ah li xolam day gën a sedd rek kon ñi ngi koy moom it ñu yaakaar gën naa ko ci melokaan bi ñu gis wax dëgg yàlla ku xam xam ne taalibe fu mu mën a nekk rek wax dëgg yàlla war nañ ko man a xool xoolaat ko kon moo tax njabootu boppam ñëw nañ soxna yi boppam ñëw nañ taalibe yi ñëw nañ soppe yi ñëw nañ sëriñ bi amoon na yéene ñëwal boppam waaye Cheikh Ahmad fu mu toog mais teew na ñëpp kon daal ñu ngi tuub ci jégalu ci kàddu bi lu ci jub ci sëriñ bi lu ci e, dégg tamit kàddu Aliou ko doon wax que ñu ngi tubaab baax a baax ci jégalu na wax ak say waajur wax ak say kilifa ak ñu la gën a xam jafe waaye wasalaamaaleykum wa wa barakaatu jërë ngeen jëf. rakkam ñi ni ñooroon tànt bi di Serigne Fallilou Fall ak Serigne Modou Fall mu Serigne Moulay Tafal di siyaare mboolem soxna yi nga xam ni ñoo ànd ak sëriñ bi tey waa kër Cheikh Moustapha Fall suñu yaakaar ak ëllëg. nuyoo beeg siyaar bi ñu ngi ciy jiital soxnaam si nga xam moo nekk ci suñu biir di soxnaam benn booy ñu ngi jéggalu bu baax a baax it nga xam mel na ni Serigne Cheikh Fall Khadija yi teew na fi ndax soxna Nday Fall ñëw na fi te am na fi ab diir te mooy xalifa kër gi kon bàyyi ji dafa mel ni li nga bëggoon lépp ci sëriñ bi am na ndax mboolem ñi fi teew ñëpp seenu xalifa teew na ci jotaay bi ñëw nañ fi nekk fekk yow bu loolu jàllee ñu ngi siyaare bu baax soxna Ndeye xalifa ànd naag soxna Soda Fall teew di ni mooy xalifa jiir ci kër ndeyam ak kër baayam ci wàllu soxna yi am naa ak ay mbokk yëpp ñëw waaye li am solo ba am solo mooy carte yi nga xamante ni dafa jóge ci sëriñ bi jëm si ci mu jaarale ko ci sëriñ Abdoulaye Fall bi nga xam ni mooy rakkam di jëwrinam di léppam nga xam ni fépp foo xam ne sëriñ Abdoulaye Fall bi teew na mel na ni sëriñ bi teew na bëggug sëriñ bi moo doon teewul ak jëmm bu ngeen gisee nii mu demee nga xam ni sëriñ bi la ko gënaloon te mu doon ak bëggam mooy mu teew ci jotaay te it na ko lool waaye jamono ci fi mu toll ak xat-xat yi bari lool te moom ndigal bu jóg fi moom loolu rek moo waral mu demee nii mu demee kon sëriñ bi nee dinaaw kàddu yu nuyoo yi ak kent yépp dañuy sant bàyyi bii mi ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal li ma waxoon ci bëccëg rek bàyyi jiiri dafa ñëw jébbalu na ñëpp di taalibam Cheikh Modou Moustapha yaakaar ko loolu wóolu ko di ko liggéey kon képp ko ànd ak moom na nga xam ne bàyyi jiiri moom fa mu nekk nekkul fa lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa Cheikh Rahmatulah te loolu it sëriñ bi nangul na ko waa kër sëriñ bi nangul nañ ko ko doogay nangul nañ ko waaye la ci ëpp solo nag mooy yar ndax jamono ji lu waay mën a bëgg loola lu mu rëy rëy rëy te wute woo ko yaram tekki soo ko amee dana la rëcc te toll nañ ci jamono ju xat du naqaree liggéeyal sëriñ Tuubaa waaye yow mi jóg dëgmal ko nag da am fulla ak fay xam ne bu baax fi lañ ak li la tax a kon yéen ñi nga xam ne da ngeen a laxasaayu ànd ak bàyyi jiw bi ñu fi mu leen jëmee mooy kër maam Cheikh Ibrahima Fall foofa nag jëmee ndigal bàyyi tere nag dafa am dana am keneen ku leen woo ci lu dul loolu mi ngi leen di boo xasee joxe sa bopp moomatoo sa bopp kon lu ngeen joxe bu leen ko lu mu rëy rëy bu leen ko waaye lu mu tuuti tuuti bu leen ko fay xam ni daal sëriñ bi moom xolam sedd na ko am xelam it daal na ci bàyyi jiw bu baax a baax ak mboolem mboolem bu baax teewaay bi nag. daa koy wax leen waaw ngeen góorgóorluwaat bu baax baax ci liggéey bii ngeen ci liggéey Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall da ko jàll ci bàyyi jiwu bi. li ma leen waxoon rek ñun duñu campagne am kenn ñëwuñu fi ngeen campagne am kenn loolu taxu jóg li ñu tax a jóg mooy képp koo ni da ngaa jëpp te nu ko liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall foo nekk dana fa fekk Serigne Moustapha Fall nag moom. suñu yaakaar tey ak ëllëg yàlla na fi yàgg lool te wér képp ku mu àndal te muy dëkk ci yow li nga bëgg tey ak ëllëg ñu am moom naxul bàyyi tere bañ na ko ba fu mu fa kon kàddu yi mu gudd mu gàtt li am solo mooy sëriñ bi ak bëggam yépp moo doon teew ci jotaay bu ma juumul nii ma koy waxee moom la ma waxee sëriñ Abdoulaye Fall ñi yónni di ndawam ñun ñii tamit wax dëgg yàlla wax nañu ndax xam na suñ diggante bàyyi ji bàyyi ji nag mënuma wax ci moom ndax li tax mooy bi mu ñëwee jox boppam sëriñ bi fekk yambal mu ni man mu ne ma yaay sama jëwriñ loolu daal di te it am waxoon weddi wu ci dara weddi wu dara lépp lu mu sumb ba keroog bis ba doy yegg saa su tey dina jox ak man ko jant bi sumb kon nag ñu ngi lay bu baax di la gërëm da ngeen jàpp ne mbokkam yëpp a ngi ci biir ndax soxna si ma tudd léegi maa ngi jégalu bu baax. saa bi ngeen gis mu toog di jëlee kii am xalifaam xëy na am na ñu ko xam kii moom baa ji ñoo bokk lépp moom it kii naa ci Sëriñ Tuubaa seen xalifaam ku am yàlla ami teg bëgg Sëriñ Tuubaa te yëngu ko dara man xam naa ci dara ndax damay fekk màggalu Tuuba soxna si ñu nekk nag am seen nag ñoom ñëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom defal ko fan wu gudd mu ànd. muy soxna lay taxawu tey at mi ni njëkkee ñëw borom këram jënd kër boobu sànc ko man nii la sëñ bi woo ba ma ñëw mu ni ma kër gii ak sama kër gii genn la lépp loo xamante ne jóge na sama kër gii na dem ci seen biir kër boobu loolu moom duñ koy doxal na moom mu nee soo la wax ci moom waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kàddu yi daal lépp lu ci jub nammeeru suñu borom la lu ci mel mel ne ne fan nii la waaye nañu góor-góorluwaat yéen ñi nga xam ne da ngeen a ànd ak bàyyi ji nekk ci gox bi da ngeen xam ne am na ñoo xam ne bu ñu sañoon seen liggéey bi du dem am sax wax bu de bu ñu sañoon lii ngeen takk laxasaayu ko ànd ko bàyyi ji du dem. ndax ñu bari jàpp nañu dafay ñëw ngir woo woote wu day liggéeyal Sëñ Tuubaa talu talu ko ñëw fii di ñotti wala muy woote tal na la ne mbaamum law be jawar du ko tee sën moom talu ko liggéeyal Sëñ Tuubaa boo ko a jóg kon yéen ñi ànd ak moom ci liggéey bi da ngeen am fulla am fayda te xam ne lu ngeen liggéeyalu Sëñ Tuubaa tey jii bu ëllëgee da ngeen koy per bàmmeel moom kër bu xat te Sëñ Tuubaa fay dimbali barke Sëñ Tuubaa te ndimbal lépp mi ngi ci loxol maam Cheikh Ibrahima ku mu neex gëm ku mu naqari bàyyi Cheikh Ibrahima moom amul morom loolu nañ ki wax ci moom waaye amul morom ku ni damaa topp tànk bu yàlla ba mu sos ci sa kër gii bu ko sëñ Tuubaa ne woon tàmm suñ borom ak ni mu ko amoo ko dëgg sëñ maa ngi dégg parce que Cheikh Rafal bu muy wax loolu bu ko sëñ Tuubaa ne woon tàmm bi yàlla baa ngi nii romb na sama kër gi mu bàyyi fi sëñ Tuubaa waaye daa xamoon ne génn daa xamoon ne génn sëñ bi nëbbutoon na ko nu ne na sëñ Tuubaa waruloo na ko nu ne na waaye xam na ni moom du sotti di jéem a wax ci moom ñëpp mënuñoo wax ci moom kenn xamul lu ko dal lu mu mën a doon. liggéeyal maamam Cheikh Ibrahima Fall moo ko teg kon yàlla na fi yàgg lool te la njabootam gépp a ngi fi la soxna yaa ngi fi doom yaa ngi fi kilifa gi mu yabal bi rakk yëpp a ngi fi kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf ngeen baal ma di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi euh, rafetlu teewaay bi di gërëm itam yëg-yëg bi nga xam ne du tur bi mu yëg-yëg bi ngeen am ci suñ jëmm yu xeebu yi ndaxte kàddu yi ma yëkkati dama koy yëkkati turu professeur Daouda Gueye bi ma àndal mu waxloo ma ne ma su ma demee ma yëkkatee ay kàddu yu ngërëm jëmale ko ci seen ji bi waaye jëmale ko ci ndongoom yi jëmale ko ci ndongoom yi moom mooy dañu nekk ay ndaw nekk ci gox bi ñu ñëwoon fi waxtaan si ñoom bis ñu yëkkati ay kàddu yoo xam ne ba tey ñu ngi des ci bopp wax ñu mun naa dem maag sama candidat bi Daouda Gueye professeur Daouda Gueye ak ñoom Aliou Ndiour ak yeneen gars yi xam ne ñoom lañ investir ci commune bi ñu war a dem ci élection ànd ak yee coalition Yewwi Askan Wi dañ doon def porte à jaar fii fekk na fi waxtaan bis boobu dañoo wéeru fële ci pàkku law yi ñëw ci fuur bi fekk mburu mu fanaan ni ñëw ci mburu mu fanaan moom lañ daan jël pour mën cee mën koo yóbbu kër gi ñu seddoo ko taalibe yu bëri toogoon fii ñoom it ñu jël ay kàddu fasante kóllëre yu bëri yu am solo joxante ko ak ñun ci rek ne yëg-yëg moom mooy lépp parce que ñun xamante nañ fii ay suñuy raq ñoo fi ne ñii dañoo yàgg ànd ak seeni mag ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen yàgg gi ci biir koñ bi donc suñ gisee ñoom ñun booloo tax doon benn rek amaana foofu mbiru yàllaa fa ne ndaxte ay ndaw yu booloo rek yàlla fa la ne parce que yàlla ci ay ndaw la lay jaar ndax yàlla ndaw la soxla ñu waxtaan ak ñoom ci loolu. waaye it seen wax yëpp tënku ci kàddu ndigal kàddu seen sëriñ nga xam ne ñu am kilifa ñu xam li ñu bëgg lañ waaye dafa am ñi ñoo xam ne duñ neex a comprendre te Baye ci la bokk Baye Fall comprendre donc foog am benn tolluwaay pour ngay gën a comprendre Baye te wax dëgg yàlla ci kàddu yooyu noonu lañ waxtaanee ñoom ba it. ñu fasante kóllëre seen sëriñ bii mu doon ndaw waaye ndaw lu am pas-pas kon bii day dégg kenn déggeewu ko ci naka sudut noonu parce que ba léegi waxuma waxi professeur euh, ay affaire de campagne ak politique waaye kàddu yi seede la ndax dëkkandoo soo gisee ak sa moroomu dëkkandoo ci koñ da koy seedeel lu baax su ay mbokkam teewee moom ci yar ak teggin ak dal dal bu dal bu set waaye it mu jaarale ay ndongoom ci yoon boobu ñu koy rafetlu lool ndaxte amaana am na say rakk yoo xam ne soo leen gisoon ci yenn jotaay rek da tiit dangay ngay jaaxle waaye am na ñoo xam ne soo leen gisee ci yenn jotaay sa xel day gën a dal ñu lay gën a dénkuwaat di la dénkaat koñ bi ak xale yi di la gën a euh, vraiment encouragé ci lii parce yoonu yàlla la sëñ Tuubaa woote min allaahi ilallaahi ayna muridullaahi donc soo ñëwee ci koñ bi woo ndaw yi ci loolu dañ la dañ la ciy fekk di la ci encouragé vraiment di la ci gërëm mu baax professeur Daouda Gueye euh, nekk candidat ci euh, commune Pikine Est bi ñu nekk pour mairie euh, mairie Pikine Est moom nag dafa fekk ne yàlla dogal na dañ ko tànn ci coalition bu mag boo xam ne bëriwoon na ay candidat mais dañ ko tànn parce que ñun dañoo gëm ne balaa ngaa laaj gox day fekk nga defal sa gox donc dañ euh, ko xamee ci moo doon xeex pour ñu yokk armeeru Pikine yi parce que armeer yi feesoon na bañ bañ ba soo gasee parfois da ngay daj dara nga suul ko dem uti leneen donc moo tax vraiment ñu ñu ñu ñu mu jug ci xeex ci ba yàlla may ñu ci ndam ñu am ci cinq hectares yu ñu yokkal ci cimetière ci euh, pas-pasam ak bëgg-bëggam ak détermination ak bëgg goxam vraiment euh, donc ñuy gërëm di leen sant di rafetlu teewaay bi di ñaan yàlla yàlla yokk wërsëg yokk xéwal ba déwén ñu teewaat ko ci yeneen anam incha allah ñu ñëw ci ci ñëwin bu officiel aussi en tant que monsieur le maire jërë ngeen nga bëgg nag waaw yéegi suñu borom la moom lu nu mën a jaamoo yàlla la rek kon saa wu suñu borom dogalee mu demee noonu ci noonu ko bëggee nga xam ni tamit. waaw du pour yow ñoo jiite la rek waaw te jiite woo leen ci seen bakkan moomoo leen waaw booy xool sax ñoo nga teg dañ dañ na doxalal ñu rek kon nag nga daal di doxal ca ñoom na ko bëggee tey ca ñoom gënee nga xam ne lu ci am solo la ndax jaamu bërëb jaamukaayu yàlla la waaw kon baax na ba ci isaaka yi noonu waaw ngeen gën a wan kanam nit ñi rek ba gën leen a ñemee tey ngeen fii ci gox bi ngeen fexe ba lépp loo xamante ni war na fi ngeen bañ a ku leen koy laaj voilà. ba ngeen am barab bu ngeen mën a ak ñun sax bu ko defee lépp lu ngeen am yéen a yaatal rek ngeen yaatal ko noonu waaw na jërëjëf. incha allah di sant si di yeesal suñu jëfandikoo ak Fall Ba di ñaanal Seex Ahmadu Muntaxa sama borom dëgg la ab taxawaay li muy liggéey ci yoon sama borom def ko dal noonu la ko ñaanee maam Seex Ibrahima Fall bu ñëw Fall noo ngi siyaaree suñu sang bu baax bi mu fekk muy sëb Sëriñ Tuubaa ndax ñun waa Seex Ibrahima yàlla dafa dogal yëpp ñu fekk dara Sëriñ Tuubaa dañ koy jox ak kër jiital ko ngir jëm yàlla waaye loolu ñu lépp nag dañ koy def ngir jëm yàlla ndax looy def te defoo ko ngir yàlla doo dara kon lépp lu waay def baa ko def ngir yàlla moom muy leen solo xam naa ne sax kàddu yi mën naa ko ñu ndax jëw nañu doon wax yëpp maa ngi ñoo bokk sëriñ te ñenn ñi soo leen mag leen ku mel suñu mën maa ngi laa muy sama ne teg dara ndax kàddu yu proté la te lépp doon na ci li ñu wax lépp sëriñ bi naa noonu yu bàlla ak mbooloo bépp te ñaan sa borom ñuy jégal te ñaan sama borom ba ñu jéggal ñoo ngi siyaare mag ñi di siyaare ndaw ñi di siyaare góor ñi di siyaare jigéen ñi li bàyyi bi wax rek man foofu laa jógee nañu ànd ngir yàlla tey jàppalante tey dimbalante kenn ku ne loo yëre sa bopp nga yëre sa bopp loo bëggal sa bopp nga bëggal sa bopp ndax yéene kat kenn du lu waaye yéene kat da xam ne yaa ngi yëpp li ko mu yéene foofu Cheikh Mouhamadou Fadel nee na sàmm ba lay leer suñ Fall ndax ñëpp laa yéene yéene ñàpp yéene ñëpp jàmm lu tax ñëpp am jàmm waaye yow danga jàmm kon fan toll nañu yéene jàmm te dimbalante te sagalante tey neppante ay yéen ndax Abdoulaye Xattaar mu fees dell ak ay fu mu toll ci ay jàngu lay xëy ci lay gont loolu lañ ko wat ni loolu tax loolu tax am ngërëmu yàlla te àdduna képp koo xam ne dañ koy wàcc suñu borom la bind moo la fi wàcc di ci bon ci fi ëllëgee ci moom koy dellu kon nag nañ wàcc bu ëllëgee moom nañ yóbbaale ngërëm te ñaan tase asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. di noppalu def lu leen neex kenn du leen baale bu ngeen def lu leen neex kenn du leen baale bu ngeen doon toj ci dënnu bu ngeen ko de moom du di jënd mooy jàmm ji sëñ sëñ bi di wax sax di leen sëñ Fallou yéene ñëpp jàmm waaw danoo yéene ñëpp jàmm yow booy def ay ji ñu ne du duñ ko yëg waaw ñun foofu lañ toog bi ba ak sëñ Tuubaa Mbàkke waaw kon nag nii ñu fi toogee nii ci at mii yal na suñu yàlla subhaanahu wa mi nga xamante ni moom dara tëw ñu fekkee waati ko nii wér gu yaram yu yokk bëgg-bëgg yi tamit na ngeen ko bëggee suñu borom defee ko ni te mu gën bi jaay na bi kon nag sant nan bu baax a baax Fara Ndiaga Yàlla Abdoulaye Fall ñoo ngi lay sant bu baax a baax ñu ngi lay sant bu baax fu dëgg neexee waaw sëñ sëñ Moussa Fall ñëw de waaye fi woon a def lu lu ëpp li ñu fi def fu dëgg neexee yàlla yow seen mbokk yi macha allah ak ñu leen di wax sant nañ leen bu baax bu leen yàlla fay yiw ci bés bi jaay leen lu waaw. mbooleem mbokk jullit yi si teew yëpp ak mbokk taalibe bi ci nekk ci turam ak sant nuyoo boobu ñu ngi ciy jiital suñu kilifa gi nga xamante ne bii moo nekk ci suñu ginnaaw di sëñ Moulay Sambacké nii noonu ñuy nuyee sëñ Falilou Fall mee toog di rakk ci sëriñ bi ñu ngi koy nuyu bu baax moom Fall di la siyaara di ngi koy nuyu moom bu baax a baax di ko siyaara ñu mel ne Serigne Baara Mbacke moom moom Serigne Abdou Khadim moom Serigne Baara di rakk ci bi toog mu mel ne maam Thierno Bousso it ñëwoon na fi moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko nuyu. mel ni sëñ làmp Mbàkke moom it baax te di ko siyaare bi ñëwoon na fi muy soxna Ndeye Fall moom mi nga xam ne mooy kilifa sëriñ bi ñëwoon na fi moom moomee rek daa doon sëkk ndax ba mu ñëwee rek lépp man waaye Fall seenu bu baax seenu bëgg ma moo tax fu ma nekk rek dana fekk sagal loolu sëriñ bi ñu ngi koy sant ñu ngi sant bu baax a baax di nuyu sëriñ bi bu baax a baax nag day sant sëriñ bi nag ndax ñun de lu ñu am rek Cheikh Moustapha Fall waaw Cheikh moo ñu salal biir moo ñu salal bitti lu ñu am rek Cheikh Moustapha Fall maa ngi nuyu soxna Ndeye sama may di sama mag di sama lépp di sama xalifa di nuyu Baye Moustapha ñuy toog moom di nuyu mbooleem ñu ñu àndal di nuyu soxna Ndeye Fall mi di suñu xalifa di nuyu soxna Soxna Fall ma ñu toog soxna bi Diop Malick ñu ngi koy nuyu baax ak mboolem ñu ñu àndal rek ñu ngi leen di nuyu ku lim da jub waaye ñu ngi nuyu ñëpp te di leen saare bu baax a baax di sant waa koñ bi nag ndax ñun waa koñ bi amuñ seen fay ndax heure bu ñu xewlee waaw kay soxna Mbène Mbodj mais ñu koy nuyu baax di ko siyaare ñu ngi tudd baax na moom la ñu waroon a jiital sax ndax moom soxna sëriñ bi la kon moom mooy kilifaay soxna yi kon ñu ngi koy tudd bu baax ñu ngi soxna mu meen meen ngooñ bu baax a baax te di ko siyaare di sant ñi nga xamante ni bii ñoom lañ seqal liggéey bi muy waa kuréelu Muridullah Zikrullah ñu leen nuyu baax di leen sant ñoom bu baax baax euh, di la xamal Fall ñu de ci ñu ne wéeruñu ndax barab boo nekk ànd fa ak sëñ Tuubaa ak sëñ Ibra ak sëñ Fallu rek foofu day leer te fii ma ne de sëñ Tuubaa ak sëñ Fallu laa fi àndal ak sëñ Ibra Fall ndax heure bu ma ko seen kilifa mësoon am sama jëmm boobu sëñ bu Karim Mbàkke sama xol ba mu yàgg ma ànd ak taalibe bi ñuy wax maam mu daal ne maam lamp mu ne ko mu ne ko mbàkk mu ne ko dee leen moytu wante seen biir ndax yàlla seen biir ko moom kon lii mënta ñàkk sama diggante ñoom loolu la ko waraloon taalibeem boobu di làmp moo feebaroon di ko faj di ko faj ba bañ demee ko fekk mu sol seen bu kër yi toog biir def nii sunu loxo bi dañoo nuyoo mag làmp mu ne bëreet toog. man na ko làmp mu ne ko mbàkk mu ne ko mën dugalante ni seen biir ndax yàlla ngi seen biir dimbal kon loolu kàddu googu du dagg mukk la ca toftalu muy diggante sëñ Fallou ak sëñ Modou Moussa Fall diggante sëñ Fallou ak sëñ Cheikh Fall Khady Gueye kon kóllëre googu mun tax mukk waaye sëriñ bi maa ngi lay seetal waa ko surtout kër yi awma seen fay mukk dégg ndax fu ma gëstoo rek ñoom laay gën a seen bàcc Cheikh Modou Moussa Fall xaw ma seen fay mukk waa koñ bi ñëpp jàppale nañ ñépp nag jàppale nañ ci liggéey lu ñu sëmb rek ñu ne waa koñ yëpp ñoo koy am amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñëpp danañ génn def ci seen doole def ci seen alal loolu nag ñun amuñ payam waaye sëriñ bi moom am na payam dañ koy bàyyi sëriñ bi rek mu defal leen sëriñ bu bëgg amaana kàddu yi sax moom mënoon naa bañ a génn ci ñun ndax sëriñ bu waxee rek waruñoo wax dara waaye Cheikh Moustapha Fall moom dañ ko amale cant te loolu faaw ñu biral ko ngir sëriñ bii mu yebal yóbbaale loolu suñu diggante Cheikh Moustapha Fall nag loolu amaana du neex a leeral ndax mbirum biir la mbirum baatin la ndax man de Cheikh Ibrahima Fall moom moo sot ci coobareem ma liggéeyal ko maam Cheikh Ibrahima Fall moo ma tànnal boppam moom Cheikh Ibrahima te gars yàlla yi la ma tànn delloo si ma jamono moom Cheikh Ibrahima Fall boole man Cheikh Modou Sa Fall Cheikh ngir ma liggéeyal ko Cheikh Ibrahima Fall waaye seen laaj ñu ngi lay seddal ne bantub da abub daaw jëy sax bu ñu ko Cheikh Moussa Fall joxoon bi ko sampee kenn mënu koo seet xam nañ bu wér ñu ko teg nag waxee woon suñu bakkan de bokk nañ ca gaa yàlla yi fi ëpp cër parce que Cheikh Moudou Moussa Fall Cheikh Moudou Moussa Fall du saayar lañ ko toppee du saayar lañ toppantee baatil lañ toppantee

waaye bés nga mos sama ji joxoon loo xamante ni man keroog ci laa xamee ni kii ëpp nañu ndax moo ne Moussa Fall mu ne maa mu ne ba mu yàlla yaa ngi nii. borom tur yàlla yaa ngi nii kooku sëñ Mawlou Moustapha Fall moo ko wax man may dégg maa ngi tubaab bu baax maa ngi tubaab bu baax baa ji pour leeral li ngay wax ma di la ko dëggalal ci bëri na ci loo xamante ni mooy keroog bi ma gën a see moom maris mu am bés fekk moom mi moo ma gën a si si amul Bamba Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul gën a si moom moom maam Cheikh Ibrahima si amul Bamba mi ngi taxawee loxo ndeyjoor maam Cheikh Ibrahima mi ngi taxawee càmmoñ mais Sëriñ Tuubaa ko jiit Sëriñ Tuubaa ne ma xanaa xamoon ne Cheikh Ibrahima moom moom lépp kon moo tax ci laa xamee ni wax jooju samay wax ci laa ne ko faal mun nga am la wax jii de sa wax la samay mbir ndax dañoo bokk mais dañoo gën raw ñu kii dafa baax ku tabe ku bëgg ay mbokkam waaye nag sëñ Mourou Moussa Fall rek moo moom moom moom moom moom moom moom moom moom mën a defaree yàlla ñu gën a dimbaliwaat bu baax a baax a baax yàlla ñu gën a dimbaliwaat baax ngi moom daal la cay dolleek mooy ñu ñu ngi sant ñëpp rek tey gërëm tey tey ñuy góorgóorlu ci jaamu yàlla bu baax a baax ndax suñ borom moom bu ko jaamu bis dana ñëw nga rëcc ko lool te jaamu googu moo ñu fi andi kon nañ leen koy bàyyi xel bu baax a baax jaamu yàlla moo ñu fi andi nañ leen ko bàyyi bu baax dañ leen jaamu yàlla suñ kéem kattan di ko ragal tey nëbbante suñuy sikk ndax nit koo gis am na ayib dañ bàyyi ayib jàmbur yi wuññi tey nëbbu suñ bos ku xool ci nit sikk rek di nga gis ci moom sikk te ñun ñëpp am sikk ku bëgg xam ko ak ku bëggul ñu xam ko loolu rek moo xam ne dañ leen ragal yàlla di ko jaamu te tey nëbbante suñ suñuy ayib biir bàmmeel day képp ku ñu fa yàq ba dugal la fa ba nga wéet yow képp billaahi da xam ne jaamu yàlla rek moom solo yàqu-yàqu yi bari yëngu-yëngu yi bari na nit ñi ci baree bari seen xel kenn delloo ko ci yàlla loolu ci mbirum àdduna képp da ngay gis sax léegoo-léeg ay jotaay yoo xam ne day am ba ba kii doo fa dégg kenn ku tudd ne yàlla nee na nangam nee na nangam de seen nafsu rek lañ koy teg loolu lañ koy moytu bu baax a baax nañ leen bu baax te di ci góorgóorlu suñ kéem kàttan ndax loolu moo ne fi andi te loolu it moo ñuy delloo ji ëllëg te kenn ku ne boo ci kanam suñu borom lépp lépp lépp loo ko jëloon rek nga fay fekk kon nañ leen bàyyi xel loolu bu baax ñun de Cheikh Moussa Fall ñu àndal ci jaamu yàlla ñu nàmpatal te it Fall duñ ko war mukk ndax lanu booleel moom daa sori kon duñ ko war mukk danañ lu ci kéem kattan ci jaamu yàlla leen ci man ak rafetal ko bokk ñu ngi sant bu baax nag di gërëm ñëpp rek ñu ngi sant bu baax tey gërëm ñëpp cant moom mënta weesu ak cant waaye li leen mën a xamal mooy sant nañ bu baax bi ñu wootee ñëpp ñëw nañ waa kër suñu Aziz Fall yaa ngi nga def seen naa leen démb rek lañ ko tuddee ab bis suñu Aziz moom suñu Modou Moussa Fall ñu leen di nuyu baax seen naa leen fii ci jataay bi ñoom waa ko sëñ bi Karim yaa ngi nii ñëw na kenn desul ñëpp ñëw nañu ngi nii ñëw fi ànd ak délégation ànd ak signal yu mëne ñu koy nuyu bu baax moom it di ko sant ci teewaay bi moom ak signal yu mais moom mu àndal ndax moom buñ ko xamee Seydina Aliou mu ne moo tax tey Seydina Aliou mais ak njabootam bokk ci biir daayira bi ñu nekk ñu am yar amit ay taalibe waaye lañ leen waxoon rek lañ leen waxaat ñun liggéey Cheikh Ibrahima Fall bi rek ñu am kuñ ci jàppale kuñ jàpp kuñ ci jàppale duñ la xam ñun foofu lañ ne ñun nag lépp lu bëgg Cheikh Ibrahima ñu koy ñii maam dama xam nan loolu ñun lu ñu bëgg Cheikh Ibra Fall ñu koy defal ñun diggaay ñu tan lan ku ñu jàppale ci liggéey Cheikh Ibra Fall rek la jàppale ñu ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp salaamaaleykum suñu Tuubaa si ñu ne ko sant yi nekk ci bàyyi ko toog di jigéen suñu sax moom suñu moom di xëddi moom suñu moom delloo di nuyu baax sëriñ Abdou Fall ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall képp di nuyu mbooleem ñi koy gox muy imaam yi ak ñi xam ne autorité yi ñu maire yi ak deme noonu muy kàddu yi gàtt bu ñu seede ci bay ji bi muy toog ay mbokkam daje kon loolu boo ko seqee ak moom ngeen bokk sëñ Tuuba ba mu gàtt gàtt nga seede ko am solo ndax olof dañuy wax ne seede si day dàggal te moom ñoo bokk nekk fii ñu ngi nekk fii mu féete fii ko loolu nag ba am taw féexu bàyyi ñenn suñu njaboot ñuy jaxasoog moom yaram ci tegginam ci daal ak ci maandoom ak doyloom ak nangu liggéeyam ak fokk sëriñ Tuubaa waaye di kennal kenn ki ñu seex may masallam yàlla defal nag ñàkk ñu fulla tamit nag suñu ko xooloon mel neneen ko ñëwe waaye wax dëgg yàlla faal yaaram tax nga ñu li ma si jëmali ndax ni nga doxe ak ni nga mel ñoo ngi lay seer ne am nañ ci yow mbégte bu baax a baax ñaan sa maam Cheikh Ibrahima mu téel boppam wala nga ko yéene liggéeyal nga liggéeyal ko ci lu kaay sa jot ànd kook ñu ngi ko bokkal yëpp ñu ngi lay jaajëfal ci tur waa Makaarimul Axlaaq yëpp ci tur bi tur doogu yëpp dégg nañ ci seet na ci yow suñu xel daj na ci yàlla na suñu borom taxaw lafal la cat ak kële na sa maam suñu fan ak kay sa sëkk Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Sëriñ Tuubaa defee loolu allahumma salli ala muhammadin wa sallim barke boobu jërëjëf lu muy def ne ci ndigal na ko suñu góor def na ko bàyyi day doom suñu ko defal doom suñu góor mbooloo doom kon lépp lu muy jëf baawu ñu def baawu ñu dajale baawu ñu dajale mbooloo ci ndigalam la ko def deful dara rek ñu ngi déglu boppam yéen bi nga xam ne da ngay dëkk ak moom sëriñ baa ngi leen seeree cant yu ngi koy sant ak ngërëm yu koy gërëm ak seere yu ngi koy seere ndax ab taali bi def ay li koy toppee sant ab sëriñam moom du ko jariñ dara sëriñ ba sant ko moo ko jariñ te sëriñ bi moom wër bu la sant lan lay wax ngërëmul yàlla lay doon loo xam ne ngërëmul yàlla la képp koo xam ne da ngay topp suñu borom war ngaa bëgg ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla nag ku am ngërëmul yàlla rek ñu ko nekkee te kii mu àndal moom am na ngërëmul yàlla kon sëriñ bi nee na ñu ngi leen di seereel yéen ñi nga xam ne da ngeen dëkk moom di ay xarit di ay wëllëre di ay jàmm di ànd jàmm Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha li nga xam ne moo ko yor rek ndaw yii ñu di ay góor ñu di ay jigéen Cheikh Moustapha na sant na bàyyi bu baax nee na mu ngi koy sant nee mu ngi koy gërëm lépp lu mu nekk ci ndigalam la nekk lépp loo xam ne bii gis na ko mu koy jëf ci ndigalam la koy jëf sëriñ bi nag wax dara loo ne yàlla taxul bàyyi julli heure boo julli ci loo xam ne yàlla taxul ñu bàyyi ko kon bu li li sëñ bi digal sant la ko heure boo xëyee waaye li may wax nii sëñ na na doy na sax tegga ma tegga ma man naa ñàkk waaye nag yàlla la nag ma yëkkul ci ma yëkkul ci sama kàddu ba mbooloo wépp dëgg sëriñ bi ne daal sant na bàyyi julli bu baax gërëm na ko nee na képp ku ànd ak moom na xam ne ci digalam nga ànd moom ndax moom génnul dara di jëfe dara lépp lu muy def suñu borom tabaaraka wa taala tax mu di ko def kon nag jëf jooju muy def ngir yàlla yàlla ci ko woon a ñàkk jàllale xam naa dama ko waroon a te mujj ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yàlla na Sëriñ Tuubaa taxaw ay jàmbaar ngeen am au lieu de mais ay yàlla na yoon Cheikh Afane taxaw loolu Cheikh waaw ñaanal tukki ñoom may xéewal dañ laa bëgg lool te bëgg laa liggéey te amuñu dara ñaanal leen bu baax si loolu Cheikh Afane ñu am bu bis bi bu taxawatee ñu dem dem trois jours yi nii ñaan ñu fanaan pour ñu fay dugg ñu biir bi teg ñaanal leen bu baax a baax ci doole Cheikh Afane jaajëf bu ko defee Fall jëw daal wax lu am solo tuutànk dañoo mat di bàyyi xel ndax lu tax mat di bàyyi boo doonee nit ku nite xool Serigne Saliou li mu waxoon Cheikhul Khadim diggante ndaw ñi ak mag Cheikhul Khadim defoon ko ci góor yàlla yi Serigne def si ñun kon jëwriñ jërëjëf tuutànk ñaanal leen ñu doon ay mag ñaanal leen ñu déggal seen i waajur ndax li may wax toujours loo topp sëriñ bi te amoo sa ngërëmu ñaari waajur muy sa waajuru jigéen ak sa waajuru jigéen bu góor Seexul Xadim seeral na ne bu la sëñ bi gën a aay bu la ñaanal day ese lu na ñaar doo gis dara danga naan mbàkkee nangam nangam nangam nangam fekk ne waajur yi la ñoo la kaay téye nañu fonk waajur yi ñoom la am dañ leen di sagal fu ñu tool ngir Sëriñ Tuubaa dañuy bàyyi loolu xel du ñu leen di tette di leen dimbali ngir Seexul Xadiim kon fan ñaanal leen tuut tànk man sama ñaan ci ñoom leen rekk lay doon mooy ñu gudd fan te seen xol ci Seexul Xadiim saa ñu xëyee di ko gën a gis ko amee rek duñu génn ndax boo amee fukki at ak nangam nga bëgg lu baax yaakaar naa lu baax la pour nga génn sa dara jafe ndax yaa ngi gis ku am fukki at ak nangam di naan sàngara di def leneen ak leneen kon kii bu amee fukki at nangam di topp lu baax mag ña dañ leen dimbali si lu baax waaye boo amee say tub tànk si kër ñuy nab nab njër sëñ Tuuba nga di texital yow ku mag yaay yaay yàq la waaye tub tànk du jàpp nañu libéré tub tànk yi seen digganteeg yàlla kon Baye Fall yi ngeen jige si rek. moo jàpp doom def kan ni baay ñu bokk benn taxawaay Serigne Saliou wooy Cheikh Bamba tey ci karnu bi. jërëjëf. nuroo waxi nuroo doxi nuroo jaman melo jalet dana ma day rim te Cheikh Bamba la ko donné ndax mooy sa yéen ñëpp rek kon bokk ñun ñëpp rek. yàlla dogal nga xam naa ni. Seex Saaliw woo weesu baax. ah loolu ak kuréel la. maa ngi waxoon ci baax. maa ngi wax ne gars yu xar na bëgg. kuréel gi nii rek dañuy dañuy benn jël si waat. suñu taxaw day rek kon sax ñu sëñ bi. ay ca rek waaw. moo tax bàyyi bi maa ngi lay seetlu waat waaw yow xam nga loolu kon gannaaw xam naa maa ngi jublu ko leen. maa ngi xaar bu baax a baax kon kii rek bu ko defee kii bi benn ñaan gi day xaw a. man nañ ko am nañ ko dañ ko bokk waaw te jëmu jege ay bi kenn wax dëgg waaw man moom yàlla dogal na ko xam naa ñaan bi seexul xam ngeen yow sëñ Ba ci sama rajo donc ñaan gi dama koy gàtt xam rakk ji naa koy def ci sëñ Ba mu ñaan ko ndax sëñ Ba laay maama sëñ Tubaay maama tey nee mu toogee loolu la war a mën a toog kenn mënu koo xam si yéen kan moo fi sëñ Bara di def ay te li ngeen dem ak Seexul kenn na solo muy Seexul Xadiim Lemin mu toog kenn mënu kenn mënu koo see xam ne kii mooy sëñ Bara loolu nag tàggat Mbàkke dimbali waay teew xati teew Fall bismillah waaw xam nga yow am jóobel nga bu am fulla te ñoo ma jàngal alxuraan ñoo ma yàq lu nekk si ma rek ñoo ko def si ma waaye comme noonu nga ko waxee rek xam nga man yàlla dogal na ko musuma ñaanal pour politique yàlla xam na daa xaw a daa xaw a doy waar ci man bu amee noonu nga liggéeyal ma liggéey waaw boo liggéeyal ma liggéey benn bopp waxtaane ko bokk yëpp noonu lañ koy ñaanalee xalifa maam Cheikh lu ko ànd ko bokk yëpp waaye noonu lañ koy ñaanalee bépp xalifa généraux lépp lu ñu yéene si yoon islam ñu eggale ko ànd ko bokk yëpp ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi ñëw na di siyaar di leen baalu xaq te di leen baal xaq di leen jéggul te di leen jéggal di amaat ak cant bu mbégte suñu diggante ak seen jëmm ñu Cheikhul Khadim faal yaaram seen i kàddu rafet na seen i kàddu tegg na seen tàgg seen i kàddu na war waaye nag Cheikh Ibra ak Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim ak Cheikh Ibra Cheikh Ibra baax teey lu ñu sant sant Mbàkke ay ambassadeur yu Seexul Xadim la ñuy doon ay ambassadeur lu baax lu ngeen wax war na leen xaj na bisub cant bisub cant lay doon mu mel ni jëwriñ ji sëgg xam naa xaw naa yàkkam ci sant bi waaye ay kilifa bu ñuy jëlee ay kàddu di sant seeni taalibe neel dégg na tekk buñ doon fanaan bu mu la def problème ndax ab taalibe bu sëriñ daa bëri lu nekk si biir sikkal si neex na xiin yi neex na sant gi neex na waaye ay teggin moo ëpp solo si nit te ay teggin yi tam boo ko waree loo doon jëwrin ak loo ko man di doon ak lu ñu la teg sa kanam kanam da ngay xool sa diggante ka nga yaakaar muy Cheikhul Khadim waaye da nga xool sa diggante ka nga yaakaar muy Sooro Ray muy Cheikhul Khadim bi toog mu mel ni suñuy kàddu lu tax ñu jël ko man ak yéen dañoo bokk lu ñu bëgg ñu bokk fu ñu dëkk ba pare ñu xamante te daayira bi xel na gi ci nekk ñëpp ñi si ëpp xam naa ne ñi si ëpp itam jaxasoo naa ñoom. may xamal ñi sang faa doon wax ñëpp jëmu ji Seexul Xadiim seere na man sama yoon nekkul si li nga xam ne ko si nit te yàlla dimbali na ma dimbali xam ne fa bokk koo xamuti dénk ko ma fay la ñàkk fay la gu toll yi tam di waxal nit du nekkul sama wala lu ma xamul sama ba may mu di guddi àjjuma moo góor yàlla yii ñoo bokk sikkar bi taxaw di sikkar di sampaañ te nag ni ñoom mooy seen sëriñ moom la ñuy digal sa kanam nga ko def war ngaa xam ne am na cër sa yàlla war ngaa xam ne itam wóotewul dara Seexul Xadiim ma ko ñor te seen biir laa fekk mu ànd ak ñoom di sampaañ ne dañuy def ko koy te bu ko neexal mu toog fee gaa yi di sampal ba mu neex ne mënu wàcc leen waaye ñoo ànd lépp di sampal cant googu yi tax kon sax leen ci dàq man nag doon murit dafa neex waaye di ku tedd kenn dafa neex ndax Seexul Xadim di ko dund moom li muy wax toujours dafa nekk exceptionnel te ku ko musu dit mënoo xam lu mu wax jee bari coow jee bari waaye wallaahi kenn du seexul xakim lu mel ne moom juntam li mu jëf it kenn du ko jëf kon nañu dëggu rek tey dëggal li ñu tane itam ñu leen di dimbali ngir seexul xakim ndax taayu Sëriñ Tuubaa dafa metti lool tege yéen seen wasila di Cheikhul Khadim dañ koo teg lu metti lépp mu teg ñu teg ko jafe-jafe yépp mu tegoo moo tax ñun xoolal jataay bi ni mu muritee xoolal li ngeen sol mu riisee kenn dem fi dara ñun ñii ñëpp di ko tàmbalee ci man mii di wax Cheikhul Khadim seer nañ bu ñu bàyyi woon bu tedd bi ñu bees tax la yam ñu rafet lool ñu ko gëm lool ba pare di ko jëfal duñ ci dara bu ñu yaakaaree dara nañ ci duñ ci dara waroon nañoo woote leneen wala ñu bokk feneen kenn duñu faale ku ñu bëgg Seexul Xadim lañu bëggee ku ñu topp Seexul Xadim lañu toppee bu ñu nekkoon ci leneen kenn duñu fa kon bu ñu doonee ay taalibe bu tedd nañu xam rek te jub ndax seen diggante sëriñ bi xam nga tey sëriñ bi li mu leen fekk nii rafet na lool. waaye fekkoon ne pour Seex euh, Abdu Xaadir bi nekkul noonu ak moom noonu Sëriñ Tuubaa seer leen du ma fa jaar moom nit ku am war ma la si nit place bu bàyyi kee toog muy Seexul Xaadim mee waaye juróomu góor chaque jour fa la ñegee fa la ma fekk fa la ma xat mu am pas-pas lool bëgg Sëriñ Tuubaa lool di suturoo Seexul Xaadim waaye ñaari Baay Faal nag bu ñu dajee seen jataay day neex moom li muy nekk nekk nekk Baye Fall nee na Cheikh Mouhamadou Amine maa ko gën a nekk Baye Fall ndax loolu laay dund sama jëm loolu laay doxee sama xel Baye Fall dafa neex ndax Baye Fall mu te dirigé te xamul luy loola kon yaay Fall ay roy ngi leen jox seen wàccuwaay ndax soxna jaar buñ ne Cheikhul Khadim ne soxna jaar buñ ne soxna jaar ne Cheikhul di lu am solo kon soxna yi loo leen góorgóorlu doyul loo leen jëf jëf jëf yi tamit doyul dolli leen jëfin gi bu baax te dolliwaay taxawaay bu baax te kilifa gi tamit ngeen joxaale ñu ko suñu nuyoo ak wàccuwaay bu ko yàlla jox jëwriñ maa ngi yow sama waay bopp nga xeer woo neex dana ko sàcc ndax ñu ni neen rek te xamante nañ suñu biir kon nañu doolee góorgóorlu te doolee sànni bu tedd ki Isaaxa ñu ngi lay nuyu bu baax yow mu nekk ku bëgg lu baax moom moom moom bërëb yu mel nii xam naa ni yitteel na moom Isaaxa moom euh, fi ñuy dajee lu mel ni cant yu mel ni bari na lool waaye man dama amul jot wax ci ab politique kat wala lu ko ndur wala leneen rek man Cheikhul Khadim rek moom moom moom góondi rek ma góondi muy Cheikhul Khadim ndax lam ma defal ku ko ma waaye li ma defal kenn defal moo tax moom rek moom dong laa xam ban ku tedd ki rek waaye Isaaka moom la am ma jotam am ma jotam ku lum moom ak politique kat moom man bàjjee am tiraanga ji moo defal doy na ko sëkk ñoom it tiraanga ji defal dana leen doy ku si nekk rek la nga nekk nekk sa ña nga leen te yàlla tax jàmbaar ndax bu tawee sax dina dugg si ndox yi taa defoof di dem dinaa ko romb ma xam ma romb ko jàll jàmbaar si moom ndax nit ku baax la baax la baax la maa ngi bu baax di nuyu sama rakk yi muy Cheikh Mamadou Lodi euh, Fall càtt gi nangu na xamul tax mu nangu Cheikh Ibrahima Mbacke a gërëm kër Cheikh weer wi nekk mooy weeru Mbacke Kajoor kon bu ci defee sant Cheikh Ibrahima càtt ga nangu na Cheikh Ibrahima Mbacke Kajoor laa leen gërëm kër sëñ Baara laa leen gërëm te Mbacke Kajoor gi la dër bu soobee yàlla ci weer Tuuba ci weer olof bi nekk ci ñaar fukki fan nangam lay doon. kon kooku cant ga muy defal Sëriñ Ibra Sëriñ Abdou Khadre kon suñu borom nangu na ndaxte Sëriñ Ibra moom gënam la Mbàkke Kajoor la ko jëlee ko fenn te leetar ba itam Sëriñ ko fii waaw am na loo xam ni ku ko sikk sàkk amul foo jëm pour sawar loolu nag waxuma ko loolu sëñ Ba man du sama yëf de ku mu neex nag rek boo weddee léegi léegi dem sawar léegi mi ngi noonu kon nañu jéem a góorgóorlu bu ko defee bàyyi baal ñu nekk si sant gi te xëy na moom waaw comme dama laan demee rek waaw na na na na neex rek amul solo moom lépp lu taw kese kese la te lépp tur yaa ngi kese la te ñun àjjana rek lañu xam xamuñu leneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa sallallahu taala. ولا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا Bienvenue sur Salam Vision.